Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, Abdou Lahad Lo di directeur général Proximville euh, di taalibe maa ñëwoon rek di barkeelu ci li na xam ne moom la sëriñ bi digle sëriñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te muy que bépp taalibe nga xool nañ nga mën a def ba jàpp ci lii nga xam ne mooy jàngoro ji na xam ne dugg na ci réew mi ñu jàpp ci. kenn ku nekk lépp loo ci mën nga def ko ci comme ni mu ko defee moom jël ñaari téeméeri million jox ko nguur gi ngir jàppale leen ñun tamit euh, ñu dox ci tànk yooyu noonu def li li ñu sëriñ bi digal euh, mooy ñëw tamit indi suñu participation nga xam ne dañoo wut euh, désinfectant yi nga xam ne ay pastille la yoo xam ne ci boo ko jëlee mën nga cee désinfecté sa kër mën nga cee désinfecté ndox mi ngay naan mën nga cee désinfecté eh, lépp environnement bi la wër yëpp mën nga cee désinfecté danañu dimbali ba nga xam ne lii di coronavirus bi bu fekkee ne donte cas yi fi am cas yu ndaw la yoo xam ne eh, macha allah ñu ngi ñaan ñi ko sëriñ bi ñaanee ba cas yooyu bu mu dolleeku bu mu yokk ba ñëpp mën a ñëw màggal see jàmm delluwaat ak jàmm incha allah rabbil alamin moo tax man ma ñëw def ci sama participation di ñaan ñëpp tamit waa Touba gépp ñu fexe ba kenn ku si nekk ak bépp murit ni ko sëñ bi waxee mu jafe ko noonu ba pare tamit kenn ku si nekk nga jéem a fexe ba désinfecté sa kër désinfecté lépp lu nga xam ne environnement bi la wër la képp koo xam ne tamit am nga loo ci mën a def nga def ko ñu àndandoo ko sëriñ bi ba nga xam ne jàngoro ji génn fii ci jàmm ak salaam génn tubaa génn Sénégal gépp ak àdduna bépp incha allah loolu moo taxoon ñu ñëw. di yi ñëpp di ñaan sëñ Tuubaa defal ñu tawféex defal ñu jàmm defal ñu ba nga xam ne lii muy coronavirus mu génn feek jàmm ci bàkke borom Tuubaa ñu ngi leen di bu baax jërëjëf.